Thank you. très très heureuse de vous retrouver dans Toi-même tu sais, nouvelle année, euh, de nouvelles résolutions, mais également euh, de nouvelles innovations Yo yep dina am fii incha ci biir Toi-même tu sais euh, mu di bi njëkk ci atum 2019 ñu hamne ne yu bari dal xew na fi surtout fin d'année bu 2018 day am solo ñu ñëwaat ci ndax yu ci bari man amna na ñoo xamé wu ma leen talent yu mel non mais découvrir na ci lu bari lo on va certainement partager cela ensemble ñu xam ngeen xool euh, ñeneen ñi nga xam en face caméra ñu ngi am tenue mais derrière euh, franchement c'est c'est des de vrais danseurs de grands danseurs xaw ma nan lañ ko war a waxee mais am na si biir kër gi peut-être bien on va penser à une troupe de danse ou autre chose vous allez en savoir plus certainement au fur et à mesure ñuy avancer si biir atum 2019 et comme ni ñu koy defee saa su nekk ndax duñu changer dañuy dolli mu gën a am solo gën enrichir gën a intéresser encore une fois la population et aujourd'hui on va euh, aller du côté du conseil constitutionnel bien entendu avec euh, Habi Sow mi nga Topol, candidat yi fay Il ak Il y a les admis au second tour et également les recalés nan lañ parce que pour le moment amaguñu lu Tilinga Hamanteneni, moi, li nga dossier de parrainage mais daal ñu sur place pour récupérer leurs procès-verbaux de vérification pour xam euh, yan la remplacé remplacer pour les doublons et on précise qu'ils ont 48 heures pour pouvoir revenir là-dessus euh, dinañ également li nga clip buzz et la réaction que cela a suscité une vague de réaction on va dire de beaucoup de responsables et d'internautes on va y revenir tout à l'heure ce sera toujours avec euh, Habissou dans la rubrique actualité politique et sociale Pape Ousmane Cissé nous parle de beaucoup de choses également qui touchent bien entendu le parrainage et d'autres questions liées à la présidentielle ce sera tout à l'heure avec euh, Moutban qui est journaliste mais également directeur de

Sénégal et ce sera bien entendu avec Mme Julie Essi qui est la vice-présidente du collectif des marieurs exportateurs du Sénégal ci kanam lay doon qui Sala Bigué moom la euh, euh, euh, rubrique avis du jour mais non, avis du jour plus l'indice 2019 vous allez également découvrir cela et en fin d'édition pardon d'émission journal <laughs> fin d'émission ce sera avec Bachir Nias muy Wadjel Gamou. boo xamante ne nee islam rek mooy tànneef lu tax ñu wax lu ni mel dinañ ñëw tamit si kanam tuuti daal di koy euh, décrypter mais balaa ñuy sori euh, si mais rubrique voilà, mes chroniqueurs, Niumatogasi Plateau, me le permettent, il y a un fait que nous aimerions souligner, ou en tout cas personnellement, que j'aimerais euh, souligner, Moudi, euh, de grands moments de télévision, Moudi période, le chef de l'État, après son adresse à la nation, euh, qu'il euh, fasse le décryptage de son discours avec des journalistes triés sur le volet, on va le dire comme ça, et qu'on ne retrouve pas un grand groupe de presse comme Escaf Telecom qui pilote la TNT et qu'on ne puisse pas avoir un journaliste sur place. Euh, personnellement, personnellement c'est manque de dégâts de courtoisie envers euh, le groupe parce que nous avons comme présidence mais nous euh, avons rafet journaliste on a deux télévisions on a des radios on a également d'autres supports Une qu'on ne retrouve pas euh, des journalistes un journaliste de ce groupe c'est vraiment anormal à mon humble avis te Pape Ousmane tribune pour wax et il nous arrive d'avoir de grands monsieur euh, de la politique mais également ak yeneen yoo qui ni ci train de ay kilifa lañ ci Nous bi ñu leen di woo muy ay ministre ak yeneen ñu fiy ñëw ñuy mën a soxla tamit di def signe ñu leen di jël si plateau bi donc du yon tay président de la république ku ni moom njaboote ñep ndax boudé acteur politique opposition c'est pas grave mais le président de la république c'est une institution et c'est pour tout le monde il devrait y avoir quelqu'un du groupe vous avez parfaitement raison de poser la situation comme telle parce que nous, ñep

deug la ay xalé lañ mais bo xolé ci ñi ko joti seetaan ci nañu tëggee débat bi question yi fa génn japp naa ni ñun buñ fa togon xeyna plus dina génn dama koy wax nag euh, de manière euh, modeste parce que tout simplement dañu japp ni ñi ñuy liggéeyal mm-hmm. au jour le jour ñu ngi renouveler sen confiance ci li ñuy wax japp jàpp ñu ci ëpp si Sénégalais suñu gisul woon sens ci li ñuy def dañuy zappé dem boobu benn la benen bi mooy wax nga ko sànq président de la république du Sénégal du Macky Sall c'est une institution moo njaboote ñëpp au-delà des colorations ak parti nangam ñëpp la njaboote su wootee lu mel noonu ñëpp ci war a gis seen bopp. Mm-hmm. on ne peut pas comprendre derrière qu'il y ait ñenn ñoo xam ne ba ñu juddoo barki démb la ña nga fa woon. am na ñoo xam sax ñu ngi laam laamee seen professionnalisme ca la ñu teg ña nga fa woon groupe bu toll nii comme tu l'as dit. piloté lu toll nii TNT te amul benn benn benn période boo xamante ne présidence de la république woote na ci lu mënti doon alors que teewuñu et on fait en sorte que équilibrage bi ñu wax noonu ñu koy respecté mais dama bëgg a wax leneen aram falay daaneel waaw ci gàttal mooy ni ngàcca ngalaama ah, parce que li may wax nii sénégalais yi ñu ñu jugé su fekkee ni ci si li ñu jot a liggéey ñu existé ba léegi gisuñu ko woon kon tey du ñu yegg fi ñu yegg mm-hmm. malgré tout du loolu ñu ñu décourage xam nga lu ñu def on va continuer le travail. très bien faire en sorte que li ñu amee mission de service public informer juste et vrai à travers une support yu ñu am mais xam ne ay ndaw lañ. il arrivera un moment boo xamante ni jant bi dana fenk ci ñun. te bu boobaa aussi de manière modeste on va dire que ni askan wee ñu soxla woon askan wi la merci et sur ce point amuñu dara lu ñu répression bopp mais je pense que ni du président de la République mais il faudra que nous nous ñu non day day baax wax ko day hmm. parce qu'il arrive que nous avons des tribunes nous avons des débats de la rédaction wala mais à la limite day avons des da les ministres pour nous. et ce qui est très dommage c'est de les retrouver sur d'autres supports yoo xamante ne nii peut-être c'est euh, une préférence ou wala télé bi la ñu gën et à mon humble avis je pense pas qu'ils rendent service à escaf parce que tamit euh, yor projet bu toll nii di des investisseurs hmm. war ci mën génn état yoreel la xaalis war nañu gën a mën a taxaw pour que ñu nit euh, demandé wuñ ñu may ñu mais bu ñuy wootee ñu woo ñëpp ndax moo gën a rafet pesaal xam nga dafa nekk loo xam ni bon ginnaaw bi ma leen déwénatilee ba pare parce que yàlla may na ñu génn benn at muy 2018 dugg 2019 yàlla ñu yàlla suñu borom dolli jàmm may ñu gudd fan may ñu wér ba ñu dugg ci 2019 xéewal yi yokk sutura si yokk man gi yokk barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ba ku ci nekk nga yëg ci sa bopp mais dafa nekk remarque boo xam ne ñëpp ko ñëpp ko def parce que ku nekk ca la ngay liggéey boo sañoon njiitum réew bu wootee fu ñu woowee seeni nawle ñu gis la fa te ñu lu tax waruñu ñoo woo bu dee ci wàllu liggéey ci ni muy ni mu waree rek yaakaar naa ne groupe Excaf ñu ngi koy def. Mhm. wax nga ko léegi am nañ ay ñam nañ ñaari chaîne télévision am nañ ay rajo. yaa mooy sax bu ñu jëloon sa benn rajo rek bu jóge Excaf mu dem wala benn télévision bu jóge Excaf mu dem doy na mais sa nawle yëpp toog te li ñuy def nga ko nga li ñuy def yow nga di ko def amaana sax li ngay def sax moo dàq la ñuy def. foofu te heure bi moom TMTC moom heure bi bu ne xam na ne actuellement bokkatuñ ko kenn. bokkatuñ ko kenn émission bi ni diisoo ba émission boo ko gën a. amul am doole ci ci ci ci ci ci ci média bi. question de l'heure ban émission moo ko gën a riche kon du fee le problème pourquoi Kumba am ndey Kumba amul ndey. Mhm. pourquoi xeeb te nag koo xeeb mu yàpp la ah. dëgg wax na ko léegi. koo xam ne tey ëllëg mun nga koo soxla moytul ëllëg boo ko soxlaa mun la taluma la ndax ba ma ba ma la soxlaa taluma. Mm. dëgg la du question ko nag dañuy ŋàññi wala dañoo wala dañoo yëguñu ko. parce que ñun ñoo ngi doxal li ñu war a doxal yëguñu ko de. naqariwuñu tamit. Hmm. suñu droit ñu war koo jógal naqariwuñu parce que bu ñu bañ rek askan bi yaakaar ne ñun ñoo yaafus. te dafay baax ñu leeral boole dañu cee boolewul. dañu waaye ñun xam nañ ñun ñooy ñan xam nañ lan lañu représenté ci réew mi xam nañ groupe Excaf la dem mais li nga wax mu gagné lu tal TNT kooku même bu dul woon dara sax loolu mu loolu mu rek marché bu mu gagné war naa mën a tax ñu jël ko boole ko ci yëf hmm. ndax lépp ñëpp lu nekk nee ci hmm. merci Père Sala Bigué am solo légui nak dama baye ñaxtu bi ah abi ñu ñëw ci li nga xamantene mo gëna am solo ndax tamit yobbu ñu fofu ñun dem nañ tourner li ñuy tourné waaye it feetu nañu ndax Excaf organisé euh, soirée de gala bu am solo wo ci ay ndaanaan ñepp def seen sañse yu toj ñu ñëw taxaw euh, daal di bégee ndax bégee bobu nag dafa am solo mais euh, da fay baax tamit encore une fois ñu souligner liggéey bu rafet bi nga xamni il y a des gens dans cette maison yo xamni xeyna gisunu kenn lañ ci distinguer te buñ ko distinguer distingué nañ ñu et ci seen biir ci koo xamante ne mu ngi nekk régie ñu sonal ko loolu di ko yekk lu mel ni xeme su ne waaye du tere le sourire tout le temps au visage et il fait son travail comme il le faut mu di Alain Dieng ñu koy rafetlu bu baax mu di euh, technicien euh, vidéo nekk régisseur d'antenne nekk réalisateur maanaam il est polyvalent mu ne fépp nag day football day santere day dugal lépp donc daal macha encore une fois ñu distingué ko fii ci DTV ndax liggéey bu am solo bi mais également à côté ñu am euh, suñu beneen naataango boo xam ne jigéen la man dama kontaan waxtaan si Excaf ne def parité mu di ASI nek ci RDV ah di def émission euh, dox daje dal daje pardon di defaat également 12 euh, 14 donc momit it muy def liggéey bu am solo ci walam euh, ñukay jajeufal di len encourager ñu gëna poursuivre di ñaan rek ñu nek ci kër gi ñu dolli góorgóorlu dee len jege ñu mel noonu man mi néna alerte suba na lay faral di jege ndax xeyna yu mel ni at yi di ñew mo mën see am légui <laughs> légui dañuy sétane élément boobu non su la mamá niña hola. yi ba ñàkk de. oui. foo jàngee batterie gëmoo woon ne mun naa batterie non gëmoo la woon. ah. ah, ah yëpp ci ay yëf la rek xam nga ñun ay rakk alaaji Saala bi gi jaay lañ. ndeysaan alors. Euh, yes. j'ai j'ai une enveloppe avec moi. On, on va découvrir ça tout de suite. alors. premier diplôme. meilleur agent de la. DTV. Il le mérite en tout cas. liggéey rek il se nomme tout simplement Alain Charles Faye. il est à la régie.

beaucoup à la, à la régie parce que franchement, Euh, yàlla dafa def yàlla dafa bëri sutura yàlla dafa def dama taar tardé man ay pas de dance wane wuñ samay bos ci sutura mais euh, ki monté élément bi dafa def tri et ce tri la franchement waru woon am ndax euh, bëggoon naa ngeen gis ñeen ñi fii ñoo xamante ne ay kilifa lañ ci plateau bi te dañuy yëngu mais caama def na quelque <laughs> pas de danse waaw Ousmane soo ma xettaluwul tamit doo mën a àggal il faut nga bàyyi sa reetaan yi ngay def ah <laughs> maraakis bi la ah, di félicité yow yow lu ma <laughs> Malama Vikilifa. Asma Vikilifa. Pensaram, vou fechar, fechar. <laughs> li ma si metti mooy suñu patron dégg naa yëngu ci am na yeneen yoo xam ne franchement euh, gars yi dañ leen suturaal rek nee nañ garaawul euh, ci fête bi mais c'était encore euh, des moments yoo xamante ne nii la famille de escaf Télécom s'est retrouvée ñi nga xamante ne nii ci <laughs> chaque jour su ma leen rombee man daa xam naa ma leen rombee dina xool léegi beneen bët lay doon parce que je pensais pas que mën nañ lu mel nii di ci profito di sargal Alain bu njool noonu laa koy woowee ndax cadrage bi ndeysaan wanu leen namutoo la Alain macha allah Adi ci ñu tardé nga bokk. waaw ah, a maa ngi yow yem dañoo tardé ba dañoo ñëw fekk ñuy lem câble yi loolu la ñuy ñaawalee. boobu ba tey doon def question bi. loolu du question bi abi reer nga abi photo wu nga. waaw <laughs> reer nañ photo wu nañ après ñu dem ñibbi <laughs> mais bon neexoon na trop de passage ñuy rek féliciter nga xam ni Pa Ousmane sonal na ko trop trop. jeudi abi Alain dafa am préférence si yow yow booy journal. ni muy demee ak bu ñeneen ñi di journal du benn. xoolal dégg nga day du ko jël plan large man daf may jël plan large. mais loolu du sama chance la rek jeudi vendredi samedi Pa Ousmane. parce que tu <laughs> waaw baax na <laughs> Alain daal dañ koy félicité rek. ah waaw ñu ko ñaanal ñu gën a jëm. nel Alain maa ngi koy félicité. Alain man Aliou Sow maa ngi lay félicité sama xarit nga macha allah euh, awa waaw borom Alain génnal ma élément yi. waaw nga akamaa ko sonal. mais moom dañ koy félicité rek parce que day def liggéey boo xam ne bu rafet ba pare di ko def ak xol parce que mënoo nga ñëw di ko demander dara mu ñàkkal la wala mu wan la kanam goo xam ne sax da nga koy ragal a laaj mais nu mu lay accueillir waxtaan ak yow def li nga bëgg te boorewul dara ak wax Alain doo ko dégg ci dara kon nañ koy féliciter rek encore di ko encourager li muy def nii mu gën ci continuer waaye fête bi moom neexoon na trop nekkoon na un moment de. ah xanaa da ngaa yéeg gis rek sama gaay parce que monté élément bi nag macha allah. moom it dafa man man lan moom a gën a marqué fenn bi moo tax Aïda Samb vraiment wooy na ma foo yu neex. waaw waaw moom loolu moom na loolu. Mm. te it bi ma woowee foofu yu neex bon instant boo xam naa li ñu naan yëngal say mbagg ayul dem naa yëngal mbagg yi loolu sax laa tiitoon dinañ ko wane <laughs> <laughs> mais comme li ñuy wax ci Alain rek xale bu baax la parce que mm. eh, lu ëpp ci am na benn émission bu bu ñu commencé woon waxtaanu làmb mm. jour bi lañ ko xalaat ci jour bi Alain lañ ma booleel mais jour boobu euh, ci laa ko xam parce man xale yu ci bëri duma leen xam mais jour boobu laa yéeg régi ci kaw mais ni mu ci amee Pastef ci liggéey bi. Mhm. jour boobu vraiment daf xale bi dama ko ci laa ko jàppe ba nëgë ni mhm. kon na li ko may lii mooy nangoo liggéey te liggéey rek mu am solo. liggéey rek mooy li am solo. nit ñàkk jariñu boo liggéeyee rek. tubaarkàlla loo bëgg am di nga ko am kon ñu ngi koy encouragé yàlla na mm. prix yi gën a bari bu mu déwén nañu wàllu ko sama doom yi jigéen ñi <laughs> a lay aram tira xam moom non am na fële euh, ca ca waaw waaw waaw la parce que dañuy wax bi bu mu mettee mm. ngay gis ñenn ñi ñoo xam ne duñu bàyyi ñoom it ñu jàpp dafa am solo donc moom it Lyon euh, la dañ koy dañ koy sargal ci li nga mm. xamante ne nii am na ko mais euh, dégg naa nag enveloppe am na xaw ma nag enveloppe bi dëgg la ou pas mais image yi j'ai vu que Cheikh moo récupéré enveloppe Cheikh cadre yi la bokk Cheikh bu fekkee da nga yor enveloppe bu Alain ngir yàlla wa rasuli jox ko ndax dig na ma ci dara loolu laa bëgg mu mu am euh, ñeneen ñi tamit aasi ah, euh, waaw li ma def nii tamit war nga ci mu def lu baax comme ça lépp lépp teraanga la Pape Maguette récupère enveloppe ñu ne ko Pape ana enveloppe mu lekk naa it <laughs> baax na léegi-léegi dañuy dem euh, si la première actualité de internet. Actu Buzz avec Habi le nouveau single de Kirgi qui fait fureur, on va dire, Thérèse Faye furieuse sur CNN.

mom tay mom xamna da nga danga danga tang mom parce que dégguma la foo souhaiter Sénégalais meilleur vœu. <laughs> non loolu may pour la fin. waaw <laughs> ah, may ma rek <laughs> alors que ñun si say fan si lañ bokk fan si émission bi sax ak fan si télé bi parce que euh, Aram euh, bi nga waxé sama xol dafa toy parce que ñun HLM lañ juddo on a fait plus de quarante ans ici. Mm. est-ce qu'a fait fekkuñu fi ñu xam lépp nak man lu may teg ci li nga njëkk a wax. Mhm. avant may du ñëw ci ci rappeurs yi li ma ci wax lenn rek la mooy anglais dafa wax never give up be strong. Mhm. ndaw ngeen te ndaw ñàkkul dara. yéen a ngi xeex xëy na sénégalais bu ñu gisee yéen a ngi xeex bu ñu gisul yéen a ngi xeex te fii. dafa am lu xew Sénégal nit ñi bëggatu leen bëggatuñu ku leen wax dëgg wala nga critiquer mhm. dès que nga critiquer wala nga wax tu es zappé par tout le monde. Mhm. waaye nag taal bu yàlla taal boo ci mat waroo ko fay. man sama wax loolu la. di bon lii c'est révélateur peut-être defin bi mais il faut que aussi les gens se remettent en question parce que dëgg le président de la république Macky Sall c' une institution te y a yaay may sa bopp euh, kilifteef may sa bopp notoriété ne serait-ce que ci mhm. parce que suñu président la ndaw la ñun ñoo koy yónni lu nga xam bëgg nañ ñu jox ko feccer ci bitim réew lu ñu metti métti na yem fii rek mhm. nànk nañ def nank rek man loolu la amoon lu ma ci wax ah waa Aram euh, yaakaar naa ni comme nu ko ñëpp gisee rek vidéo bi nga xam ne temps yi mi ngi circuler sur euh, sur la nag clip bi génn na mais euh, di di di di wax ni rek que nañu dal nañu nañu def nànk parce que ñoom mun nañ ne euh, ñoom ñooy euh, la voix des sans voix ñi nga xam ne mooy woykat yi que ce soit mu nekk rappeur wala mu nekk beneen xeetu musique bi ngay def dañuy faral di représenté ñi nga xam ne mënuñu wax di leen waxal mais tamit lépp lu ñuy wax rek wala lépp lu ñuy jëfee rek nañ ko def ci yar ak teggin bu fekke tamit nak liñu def tam dafa ëpp lu lu wara dal fekke fekkee yoon dafa wara dal sen kaw dañu setan rek ba fam fu wanenti di mujjee gëtam. Mm-hmm. voilà Pape Ousmane. wa bon. Euh, seetaan nga clip bi yow. mais bien sûr deglu nga taxi bi nako deglu na taxi euh c'est vrai que ni euh amna lo xamanteni euh duñu ko mëna a rafetlu moy waxin bi. Euh, ak niñu baxo Sénégal ak niñ ko xamé même bu fekkee rap moom comme ni ñu ko xamee surtout ci ñoom ni ñu koy véhiculer mooy dafa ànd ànd ak derrière benn engagement. Mm. mais toujours est-il que il faudrait que wax ji aussi ñu koy parce que aussi on peut pas être un peuple indiscipliné même bu fekkee ni am na ay quelques exceptions mais au fond débat bi ñu posé et pour moi, c'est ça qui est le plus important même bu fekkee dañuy blâmer fële mais nañ xool li ñu teg au fond mooy le ressenti des populations par rapport ak régime bi ci. Euh, euh, maanaam six ans voire sept ans yiñ fi def am na yu ci wax yoo xam ne c'est ay débat de fond yoo xam pour man foofu la ñuy xaaree acteurs politiques yi mooy ni ñu dépassionner le débat pour que ñu mën a waxtaan ci bilan président Macky Sall xam également ñeneen ñi apporter yeneen offre ci lan lañ koy teg pour man il est important que message boobu noonu nga xamante ni ci ëpp ci li ñu wax mën nañ ko ci retrouver bu ne justice bi dem na am na fi ko teg mën nañ bañ a d'accord ci wax ji bu ne buñ ne également lu ëpp suñu koom wala suñu moomeel jaay nañ ko ñi nga xam te ñooy nasaraan si am na ci benn ressenti boo xam population am nañ ko wax nañu ko message boobu pour man c'est le lire ci élection yu jëm qu'on puisse au moins poser le débat mais vraiment qu'on dépassionne lépp loo xam dafa aju ci ay yóbbu violence parce que Sénégal yegg nañ foo xam ne aram il faut le dire à tous les niveaux da ngay gis lu ndaw xol yi jóg xel yi kii te loolu loolu la ñu soxla vrai gentleman dañ ne saa yu ñu demee ba am ay désaccords ci réew mi comme ni ci toll que ñu mën a toog xool nañuy def en toute euh, ni ko responsabilité. Mm. mën a au moins dépasser situation yi nekk pour man c' est le message au fond du ñu mën a jàpp mais li ci des forme bi euh, duñu ko mën a rafetlu merci Pape Ousmane alors euh, régie Machallah, nous dañoo parce que euh, di di di di wax rek téléspectateurs yi ñuy seetaan invité Pape Ousmane Yexina, di <laughs> Mamadou Moutbane nga xam dafa tardé. Euh, di journaliste euh, nek également directeur de publication au Dakar Times di euh téwayam fi ci plateau bi mais li may waroon wax légui naan waa régie dañoo dégg dans le clip si on regarde il y a une séquence où deux yo xamni remarqué naa on retrouve le logo de DTV ci biir clip bi. Mhm. si yeneen télé yëpp gisuma ko mais euh, euh, faut dire que congrès d'investiture bu président Macky Sall euh, ñun ñoo ko en direct. et on retrouve deux passages ci biir xaw ma nag looloo tax invité wu ñu pale wala mais yaakaaruma ni ñun ñoo maye image <laughs> je ne crois pas. Et les images sont disponibles sur la toile, sur YouTube, Mingi également sur nos plateforme. Mais monsieur Ban mu ngi fii ak ñun ci ci plateau bi moment bi nga xamantene si la waa kër gi choisir euh, pour génne clip euh, bu mel nii est-ce que c'est pas fait à dessein quelque part damay ne ndax ñi euh, du ñu def politique. bon d'abord maa ngi excusé wu ci retard bi di leen nuyu bu dafa amoon blocage ci yoon bi xam nga rek dëkk dëkk bi dafa xaw a doyaar et puis ma ñëw seen fii amul parking aussi may yowal rek. ah am nañu parking nga tardé. bon pour par rapport ak kër bi xam nga man man je pense que sénégalais yi dañu Sénégal nag bëgguñu dëgg quoi. suñu bu ñu xoolee tuuti def un peu rétrospective Sénégal di ngeen dugal Google ngeen def bu ngeen defee mot clé Macky Sall moment boobu noonu Macky di ànd ak ñoom ñi ngi naan ab ngi def ay cercueil di di di simuler Ablaye bu dee. ñu naan màggat ji am na benn jour ñu naan quatre mag bu am 90 ans di nangam. ni saaga paa bi ab Macky ànd ak ñoom ci loolu. tey buñ koy def Macky bu ñu nit ñi rey. il faut que les gens se disent la vérité. xale bu ànd ak yow di saaga mag da koy jox da koy dëpp wax ko dëgg bu leen Macky waxoon dëgg jamono jooju tey duñ toog di wax lii makki bàyyi leen waa kër gi ñu avancé. très bien voilà. Euh, mu ñëw si si Père Sala. xam nga dafa am loo xam ne dafa yàgg ci politique ci Ousa Sow Ousa Ousa Diallo laay commencé. waaw lépp pour cela Senghor daan wax président bu ñu leen réew mi neex na dan lay nax. loolu rek la waxoon dañ koy tëjoon. parce que boobu liberté d'expression bi amul woon. biñ demee ba jamonoy Abdou Diouf Ablaye Wade di dégg ñu naan monsieur Foras madame Moulin des trucs comme ça ñu naan a ah, kii li ëpp na. ñu dem ba jamonoy Ablaye Wade mbaan wax na ko léegi ñu naan góor gi dee naa suul leen ko. gis ngeen fi ma tàmbalee. dëgg ak fi ñu yegsi bu njëkk ba dañ daa censuré. am na wax yoo xam balaa moo génn kenn du ko wone kenn du ko teg même am na ay combat de lutte yoo xam ne amoon na fi ay années 77 78 combat yooyu kenn kenn wane wu ko benn lañ ko wane waneetuñ ko jox ni ko génn violence bi nag li koy indi mooy ñi ñoom li ñuy def man du ma ci ànd parce que man lépp luy ak lépp luy baat boo xam ne dafa ñaaw du ma ci ànd ak nit mun lañ ko waxee neneen jël nañu suñuy justice jaay nañu suñu alal def nañu suñuy dénoncé ci la bokk mais nag baatu saay saay. waa léegi loolu lan lay tekki. saay-saay mooy ku bon ab saay-saay. buñ ko waxee xale lan lay tekki. xam nga xale boo xam ne tey xale bu sàcc nga ñu ñaar dërëm mu sàcc ko dañu xale bi bu màggee saay-saay lay doon. saay saay baatu olof la. fekkee xale boo xamante ne mën naa ne euh, dafa mën tooñ wala dafa mën a lii kooku boo nee xale bi saay saay la lan lay. dañ koy baat ba lay xale bu léegi la kooku mais saay saayul. d'accord oh bu leen comparé lu bokkul. signification bi dafa dafa péjoratif. bokkul léegi ak saay-saay bokkul xale bu léegi mën naa ñoo fekk baantoog mu mu kott ko dóor ko daw fo ak moom ko dafa léegi mais xale bu saay-saay mooy koo xam ne toujours mi ngi toog di xool yi fu coor mu def ko. <laughs> dafa am benn affaire boo xam ne Père Sall souvent da koy wax te damay bëgg chaque fois di ko di ko rappelé wu. Mhm. maanaam da ngeen ne bu ñuy booy génnee dara. Mhm. moo xam journaliste ku mënta doon. voilà boo ko jëlee euh, taf ko ci sa waaju. sa waaju bu jekkee génn ko boo ko tegee bu jekku rek bu ko génne. waaw parce que li ñuy dénoncé nii moom la Sénégal ñëpp di wax ah, réew mi neexul metti na nangam nangam nangam c'est très normal. mais baat boobu yàq na li ñu wax lépp. parce que baat la boo xam ni même bu fekkee Macky Sall àndoon naa ak ñoom ñuy wax Ablaye Wade rafetlu wu ma ko. bu nu àndee tey jii moom it di ko waxaat Macky Sall du ma ko rafet lu bu fi keneen toogaatee ëllëg ñu koy waxee dëkkoor du ma ko rafetlu parce que lu ñoo fexe fexe fexe ba mu rafet mm. lu rafet fexe fexe ba mu ñaaw encore nanu yaraat suñu bopp mm. parce que ñoom ay porteur de voix la ñëw nañ fi ma wax leen ko de mm. kilifa c'est mon cousin caat samay xarit lañu bi ñu ñëwee fi ñu invité leen dama leen li ngeen wax lépp rafet moo jekku ba kilifa di tooñ naa ma saala dina xool comme ni ñu koy waxee nu gën a jekk wax bal la bu xisee bu génn mënatoo ko dabu mi ngi mel ni nga julli ci jàkka ji ba pare xutba xutba bu rafet terminé saaga ndey loo defoon nu yàqu na hmm. loolu madame madame madame si waaw moom bëgg na si sànni dana pe saala xam naa li ngay wax nii am na lu mu d'accord ah. euh, li ma ciy sànni mooy peut-être euh, si moo saay-saay bi parce que mun nañ ko jëlee ak déggi déggin bu rafet nit avons ko quelqu'un qui est espiègle Manam, Macky vis-à-vis de président Macky président il est en train d'utiliser des ruses. Man, tu sais, des gars, man, ça n'engage que Bon, interprétation, ça peut différer d'une personne à une autre. Waxtam dégg dégg bi tam aussi. Parce que bu nekké rek lu génn tout un scandale aussi mën na indi ay susciter ay yi ñuy bañ mooy ay tiraillement ak yooyu. ak violence mën na bañ a nekk c' est moom mën na ko surpasser sax Macky Sall si le président Macky Sall si boppam lii mën na ko bañ a déranger nit yi ñoo génn wax Thérèse Faye moo génn wax mais moom kenn déggu ko donc nan rafetal rek. Bachir. waaw ah, di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum wa rahmatulah. di nuyu ñu ñu bokk ak plateau bi ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. rafetlu état bi nu mu waaw xam naa clip bi liñ ciy wax rek mooy moo bi damay wax li faala wax. rafetlu woo ko. non rafetlu wu ma ko parce que dafa am nooy waxee kilifa waaw euh, booy wax sa kilifa booy xool bu ñëwee ci histoire yonent yàlla Moussa jamono mooy ki gën moo yàlla tànn ko. Euh, na mooy ki gën a bon. Mm-hmm. moo yàlla na ko boo demee nga affronté ko ak sa frère. mais bi mu demee def na leen message bi leen yàlla jox malgré que ay yéenanti leen mais Moussa nekkul ci dëgg nu mu tuddati Firawna nekkul ci dëgg yàlla daf na leen bu ngeen demee da ngeen wax ak moom wax joo xam ne wax ju teey la mhm. ku ne xam na ne Firawna kàccoor la dana mun a moo rek fa quulaa lahu qawlan layyinan kon booy wax kilifa da ngay wax ak moom wax joo xam ne wax ju teggin la parce que ku toll ni njiitu réew nga ne saay-saay la loolu dafa nekk loo xam ne ku ko rafetlu bu buñ ko waxoon sa waajur du la neex waaw malgré que mën nañoo dénoncé liñ bëgg a dénoncé problème bi am ci dëkk bi lépp dëgg la ñu waxal ko nit ñi waaye ku wax ak kilifa da nga koy wormaal. baatu worma di wor daal wax ji yaakaar naa day nekk loo xam ne merci beaucoup Bachir Niass Abi. waaw pour tëj man la question que je me pose mooy est-ce que être artiste permettre na ngay génne yenn kàddu yi tamit bëgg naa ñi nga xamante ne ñoo di euh, droit de l'homme si daal ñu ciy génne tuuti ndax euh, rappeur laa rek war na tax may may war a mën a wax lu ma neex mais aussi suñu invité évoqué na ko léegi en 2011 kër gi ci boppam génne woon nañ benn clip du ma jaar ci tur bi mais définition bi mooy ku dul wax dëgg noonu lañ tuddee woon way bi mais way bi mi ngi ci doon ànd tey jii ñiy ŋàññi way bi ñoo àndoon ci way boobu démb kon donc dafa mel ni que euh, bal bi dafay tourner gis nga ak looy mënti ànd da nga doon nit koo xam da nga constant mhm. lu dul yoon neel du yoon bul ne rek nekkul man lañ ko wax ànd naa ci bu mhm. fekkee waxuñu ma ko rek kon c'est bon fekkee sama temps lañ ko wax rek baaxul nañ di éviter loolu loolu moo ñu indi fii tey bu doon tey depuis le début bi ñuy commencé di wax liberté d'expression baax na trop mais tamit dañ naan trop de liberté tue la liberté am na yoo nga xam ne buñ ciy dem ci excès parce que excès baaxul ci dara ak lu mu mënti doon ëppal baaxul ci dara tey tamit président ak luñ ko mënta wax institution la ak lu mu nu mu mënti doxalee ak nu mu mënti gérer dossier nañ ko nangul kilifteef foofu kilifa la tey it tey wax nga léegi lu am solo période moment bi nga xam ne moom la choisir pour génne clip bi moment pré campagne la moment yi nga xam ne ñu ngi jëm ci élection la presque un mois dong moo ci des lan lañ ci jublu xamuñu ko mais itam ñi nga xam ne ñoo nekk présidence nañ am grandeur. Mm. ndax des fois nit dina def dara di ci wut leneen. di ci wut leneen mooy répondeur automatique yi tey dara am na rek ku nekk génne di wax amaan na tey bu clip bi génnee ngeen am benn mesure wala ngeen am benn retenue fi mu war a egg du fa egg mais am na ñi nekk ci mouvance présidentielle ni ñuy yenoo clip bi ak ni ñu koy tontoo rek amaan na wax ji mën na egg fa nga xamante ne waru fa woon a egg. jërëjëf Aby euh, am na euh, solo si li nga xamante ne ni euh, jàngat bi def nga ko ci kanam mën nañu xool peut-être ak suñu reporter bi nga xam ni mi ngi ci front de résistance nationale bi nga xam ni instant bi ñu ngi réuniru pour waxtaanee li nga xamante ne moo di parrainage bi ak taxawaay biñ ci nar a am par rapport ak conseil constitutionnel professionnelle dinañ ci ñëw si kanam tuuti vous aurez également l'actualité sportive avec président Mbaye Sène même su nekkee neexul Mansour Sall moom it ci kanam tuuti dinañ ciy ñëw mu wax ñu li gën a un ci wàllu tàggat yaram léegi léegi ñu dalal euh, invité Pape Ousmane Restons dans le chapitre politique, parrainage, une loi sur fond de désaccord et de cacophonie. Mais Mamadou euh, Ban, euh, ci parrainage que euh, dama la dégg bu yàggul dara nga wax ci loo xamante que bëgg naa ci ñëw ci xëy ñu ci ëpp ci sénégalais yi xamuñu ko ñu bëggoon xam loolu ci lan nga ko euh, ñu ko conseil constitutionnel di vérifier am fichier bi ñu fa am boobu uute naag bi ñu denc nekk fi nga ne on comprend pas dafa mel da un peu ñi doon xalaat ni du benn fichier mais am na ñaar ba ñett est-ce que mën nga ñu leeralal parti boobu noonu. ok merci beaucoup en fait euh, man depuis pratiquement un an à chaque fois dama doon alerter ci situation bi ni am Dakar ci sama journal Dakar Time gis nga bi euh, élection législative yi jubsee dañu def refonte partielle du fichier électoral maanaam ñu xool ko. benn parti bi ñu dindi ko dindi ñi ñi ñi gaa ñi ñi ñi gaañu ñi dee ñi seen carte réer dafay dekk stock moom te nii loolu mooy stock mort bi dañu koy dindi def refonte partielle pour ubbiwaat benn se ay benn ay commission ñu mën a def révision nit ñi mën a inscrire ñi changer adresse changer carte d'identité ñi ñeneen ñi bon mooy période révision bi Ibrahima Diallo bi jiite daaf nga xam ni moom moo joxe woon marché carte d'identité biométrique yi en 2005 2006 boobu Ousmane Ngom moo nekk ministre de l'intérieur xaritu Ousmane Ngom la moo lancé marché bi jëloon entreprise bu ñuy wax Iris Corporation mu am ay manquement Cour des comptes auditer marché bi. aywaay baan da nga ñuy delloowaat. Ah, non non non non li nga wax am na solo. mais euh, gars yi xam nañ ko de xam nga boo ko daggee ci bi rek gars xam historique bi. il faut nga xam ndax weñ ngaa a. waaw jox ñu léegi ñu am ñu. jox ñu les grands axes rek pour bañ a. léegi Iris Corporation bi bu gagné marché boobu. 52 milliards ñu épinglé ñu épinglé non non non c'est le premier marché biométrique ñu épinglé gagnant bi mu dem Madrid Ousmane Ngom Macky jëlaat ko bon maki suis premier ministre ñu def appel d'offre bon amul appel d'offre ça. dañ jékki jékki ñu jëlaat iris corporation jox ko marché marché carte d'ante CDAO, wu muy 50 milliards je vous rappelle bi ñu reçu une ñun opposition bi à l'époque. Il y a sax ndax 50 wala 60 parce que ñu wax ni marché bi Ibrahima Diallo a marché bi ñaata la 50 wala 60 donc mais ñu retenir 50 milliards pour marcher carte d'ante CDAO mu nekk recte Il fii carte d'ante carte électeur iris a le fichier bi toutes les données des Sénégalais il reste une entreprise malaisienne Après si Diallo signé contrat entreprise sénégalaise bu ñuy wax Il est clone fichier bi jox ko fi Synapsys Synapsis di liggéey ci fichier Ils Légui il dem gérer travail ak passeport Synapsys nak légui di gérer fichier bi mu te mais jamono dafa Sénégalais carte léegi bi coow li bëree ba ci biir campagne élection euh, législative Abdoulaye Wade waxoon Sénégalais ni leen dem ñu jëli suñu carte d'identité gars yi coow li bëri ñu jël carte d'identité envoyé ko en vrac yi war a dal dem toog Dakar dem Bambey yi war a dem Bambey dem kédug yi war a dem kédug dem ñoor moom confusion bi ñu jàllee état bu élection euh, euh, législative yi Abdoulaye Ibrahima Diallo yónni ay commission au niveau des des des des des sous-préfectures hmm. et des des commissions pour ñu def mise à jour ndax moment ñu retiré seen carte d'identité ñëpp dugalu leen ci fichier bi tax dañ leen war dañ leen waroon dugal ci fichier bi ñu def mise à jour moo waral tey boo demee bu fekkee defaluñ la mise à jour par exemple suba boo demee direction du passeport du wut passeport dañ naan la demal daaf boo demee daaf ñu dugal la ci système bi nga soog a mën a demaat encore passeport pour ñu mën la jël parce que direction des passeports yoruñu fichier bi nga xamante ni ñii ñu defal mise à jour rek ñoo ci nekk hmm. et boo gisee boo bu ñoom abdul Mbaye opposant yi ñu bëri ñu déposé seen carte d'identité seen seen parrainage ñu rejeté seen ay ay ñu bëri hmm. c'est parce que dañ dafa am ay sénégal yu leen parrainé yoo xam te ni ñoom defaluñu leen mise à jour nekkuñu ci fichier bi nga xam ni moom la synapsis yor ñu ngi ci fichier bi nga xamante ni moom la iris yor et fichier bi synapsis yor te ñu jox ko conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel ay juges ñoo fa nekk c'est pas des informaticiens hmm. et bi Sénégal des Sénégal ba léegi parrainage yëpp police ñoo koy def police ñoo xooloon ni ka signature Youssou Ndour yi ak Keba Kend baaxuloon 2012 ñoo ko vérifié à la DAF. mais d'accord mais c'est quoi le problème bu fekkee ni euh, bi bi conseil constitutionnel yor moom mooy fichier bi nga xamante ne xëy na ñi ñu mise à jour waroon fa nekk nekkuñu fa mais loolu c'est tout à fait normal parce que ñëpp mënuñu nekk ci fichier bi. quoi ah, mais ñëpp. 50 milliards waaw. 50 milliards de francs CFA des Sénégalais nga ni ñëpp waruñu nekk ci fichier bi. waxuma loolu de dama ne ñëpp ñu nekk ci fichier bi. pourquoi. ah mais ñëpp ñu nekk ci fichier bi parce que amna na ñoo xam ne période bi ñuy def des révision parce que du chaque fois lañ koy ubbi du chaque fois lañ koy ubbi exactement mais mais mais bu ñuy def révision partielle bu ñu demee benn jamono boo xam ne dañuy ubbi fichier bi du chaque fois lañ koy ubbi pour mën permettre ki nga xam ne xëy na démb la waron am je parle des cartes d'identité déjà produites avant les élections législatives de 30 juillet 2017 mm. qui étaient labaatées yu yóbbu ko ci commission yi Moodu Ndiaye dem Pire dugg ci comité raadu jox ko kartam mm. mu def ci poosam Abdoul mbay ñëw mu pare parrainé Abdoul Mbaye hmm. Abdoul Mbaye yóbbu ay parrainage am ñu dugg ndugal numéro ci fichier bi nekk synapse synapse bi nekk conseil constitutionnel ñu ne ko baaxul parce que Modou Ndiaye dafa dem pire téye ko di jëli di jëli ay ay ay ay ay ay western yi ñoom wala légaliser carte d'identité wala jël dara toog musul dem élection musul wut carte d'identité xamul ni moom nekkul ci fichier bi parrainage bi moo tax ñu xam ne des milliers de sénégalais nekkuñu fi te dañ ci war a nekk parce que loolu moo tax ñu lancé am marché appel d'offre comme ban sénégalais mooy toog ñu jox la carte d'identité nga am carte d'identité am carte électorale ñu doon nga war a xëy xëy suba vite voté Ousmane Sonko dem registre rang ba ñëw président bureau de vote di xool ñu ne nekkuloo ci dañu nekkul ci fichier bi wala dañu nekkul dañ leen a defal mise à jour ndax la mise à jour fait partie de la mission que euh, la DAF doit faire pour tous les sénégalais yi am seen carte d'identité mise à jour boobu ñoom waa APR ils ont leurs militants yoo ñu ngi ci même situation bi mais ñoom dañoo jël seen militant defal leen mise à jour ils ont recruté des vacataires actuellement. ñu ngi daan non non militant na nan lañ koy xamee ci carte d'identité tamit. Modou Bane li ngay wax nii yéen wu maanaam. waaw mais écoute man su ma nekkee responsable APR ma dëkk Pire xam xaw ma xaw ma samay militants. militant mais bien sûr. mais attends je suis responsable dans une localité bu ma nit su la responsable dem ñu jox de la même manière que opposition parce que attends attends type de militants am na des militants ñu jàppale Macky te Macky xamu leen am na ñoom te ne responsable yi dañu xam seen ay militants seen dëkk seen localité ça c' est évident yow ñi la bëgg sax ay fans ñi am te dañ la bëgg mais xam nga leen. boo leen dee jox teraanga non non non dégg nga ma la dama ne naan yaa type ma ne y' a deux types am na ñu xamul Macky am na ñu Macky xam. sa ñi la bëgg faana am na ñoo xam am na ñoo xamul ñi nga xam nga bëgg leen jox teraanga xam nga fi nga leen di fekk ak leen koy joxe. mais di leen di leen a maanaam pourquoi pourquoi mënul nekk. non non en fait yow wax ni mënul nekk mais firnde ban nga mu am ay firnde. attends a teg loxo. xam nga tey jii. Hmm. bi muy ñëw néew loo mu indaaleel bagage ah non boo ñëwee non non, non Ba non non non mais écoute non écoute. non je non aussi. mais mais mais non non non ah, ne je information ci non mais bon est-ce que vous ni question dama ah ah, non non écoutez écoutez non non écoute c'est clair c'est net et c'est précis. marché bi carte Sénégalais carte mise à jour ça devait se faire au fur et à mesure gars yi di en révision comment vous pouvez comprendre. pour autant de cas ku mel ni Abdoul Mbaye ñu rejeté ko plus trente mille signatures des gens qui ont leur carte d'identité carte euh, am ay numéro yu dañoo am président Macky Sall ñu de quatre mille signatures non non écoute Boubacar Camara il a même dégg génne carte d'identité ni carte d'identité bii nii remoré bi yëpp yi ko Moi you moi je suis je suis pas hein. j'ai un journal mais ah. euh, ces rejets mise à jour. et le jour des élections tu verras des Sénégalais qui ont leur carte d'identité ils voter parce que ci tu verras des Sénégalais qui sont sur le registre. te du ñu te duñu am seen carte d'identité tu verras des sénégalais qui doivent voter à à à à à Dieuppeul ñu yóbbu leen Castor ceux voter à à à Ouagou Niayes ñu yóbbu leen euh, Mermoz. Saala. li mu wax ni sax am na ci loo xam ne ànd naa ci parce que keroog wax naa ko fii am na ci ñoo xam ne sax am nañ carte d'identité amuñu fu ñuy voter defuñu seen bureau de vote problème carte d'identité am na problème. depuis législative yi. depuis législative yi avant législative daw daaw maa ngi voté woon bureau bureau 5 la laa voté mais yi législative bureau 2 la voté sans na mais même école bi la sans bobu la te loolu non non je suis parfaitement d'accord hein kenn du ko wax li ma aussi amna ñoo xam ne wax ma ñëwee man mi la xamni benen beneen bureau la non bi ma ñëwee bi ma ñëwee ñu won mako ñu dama ñëw lire fiche bi parce que aussi dafa am lo xamni yow nit ki en tant que citoyen da ko wara xam man bu ñëwé sama droit laay jubali fan la wara voter d'abord su ñu amuñu kii ma dem ci fi ñu bind fi ñu bind fiche bi ma liir liir ba gis sama tur xam ne bureau nangam la ma dem fa ki nga a liir xamul lu war a kii ñu ko rek nekkoo fi mu dem këram ñibbi ni man de yooyu aussi ay manquement ah, mm-hmm. a voté aussi jëppal ñu dem yóbbu ko aussi ndar tamit loolu problème la am na mais mise en jour bi nga wax man laa d'accord ki nit ki naka lay mën a kardaate xam ne kii militant la wala du militant parce que yooyu c'est des choses yoo xam ne li nga wax léegi la de su fekkee li nga wax am na kon ñu xam ne ñun suñu état dañu cuune dañu nasax. mais xam nga ma ñëw non laisse-moi terminer. Ah, su fekkee li nga wax amul. yow kon dañ laa war a yu fa yoo xam ne baax na parce que nag ah, ko woo non man man man man je pèse bien mon ah, gis nga lépp loo xam ni da koy wax mu jëm ci réew war nga koo natt. ba am ci lu leer. parce que wax bakkan lay laaj. Hmm. maa fekkee. mu ngi nii du baaraam mais wax nii rek. xam naa xam-xam wax naa wala ñaaw naa njort wax naa wala wax nan ma wax naa loolu wóorul su mm. fekkee moom li muy wax ni am na su suñu état cuune na su fekkee moom li muy wax amul ki doon ko wóor yi fu ma xam ne doone benn mm. parce que wax ji bërki démb ci su maa ngi lay déglu ci tës bi nga waxee dama tëdd ma jóg toog ma ne ah mais ban li mu wax est-ce que am loolu laa njëkk position parce que peut-être xamoo ma waaye man xam naa la wala yow xëy xam nga ma te man xawma la mais en tant que sénégalais rek bu wax sénégalais waxee lu diis dama naan lan laay xalaat eh, kii lan moo ko a fekk. Hmm. Hmm. man. na ah kii li mu wax lan moo ko ci mën a fekk mais su fekkee li nga wax ni am na kon suñu état. non ma ma leen di wuyontee. Mhm. suba est-ce que du ngeen def caméra man nationale et pour informer les Sénégalais. Parce que c'est très, très, très important ce que nous disons. Je vous lance un défi. Demain ou tout de suite, on arrête l'émission du Dougou Sama Auto à caméra. Nous sommes DAF. Nous avons un passeport pour nous faire une mise à jour. un no cest à mooy. non non loolu tam loolu tam loolu tam seen liggéey la boo ngeen ko deful vous allez fay parce que wax naa wuy ma. wax naa déglu ma non ma déglu ma wax ma dafa dafa wuy eh, jam fi mu ne nii. dama leen a jam non a ngi naaj fépp demu leen wuyu ma dama leen a jam na ngeen dem daaf ak seen caméra ngeen fekk fa booy yi taxaw nga leen sawaa na nga def foo jóge da fële laa jóge dama ñëw pour def mise à jour loolu mais c'est classique mais dama ne ban intérêt hmm? moo nekk derrière ñàkk a yëgal nit ñi que ni war nañu am mise à jour bi ñuy def pour ñu mën a exister ci fichier bi lan la ñu mën a comprendre derrière lii nii am. mais gis nga Macky il de l' intérieur léegi dafa xewi nit ñi di dem élection te doo am une idée da yow boo demee lan nga ciy jël fichier boppam lay lijjanti fichier boo xamante ni les trois cent les trente trois cent mille nit ñi nga xam ni dañu am bourse familiale mais malheureusement.

300 000. Hmm? mais il a des potentiels électeurs. 10 hmm. 000 mais parce que par une personne ne veut pas lui lui il met une stratégie pour identifier ses électeurs qui sont ses cibles potentielles il ne gère pas le reste. il s'arrange à ce que ñi mu jox am jot carte d'identité nekk ci fichier bi ba jour baa ñu dugaleen seen i carte gaañ ñi voté leen timis bu joxe résultat yi ni gañe na en résumé. <laughs> man ma bëgg nga éduquer bés mooy. problème carte d'identité ak problème mu parrainage bi. est-ce que nekk na tey am na carte d'identité rek su ma parrainé dafa war a valider dafa war a valider est-ce que tey am naa carte d'identité rek war naa voter. parce que tamit am carte d'identité ak mën a voter ñaari mbir la. nit mën na mën na. te ku mën a voté kooku moo war a mën a parrainé. non non nit mën na bañ a mën a voté. Mhm. te bëgg a voté. ndax mën nga gis comme te yi ñuy indi xamul ñuy voté dañuy ñëw rek gis mën a voté. pas mën dem dem voté maa ngi mën mais le fait que yow nga am carte d'identité nationale pour remplir les conditions fekk yow dañuy gis avant élection dañuy def ay dañuy lancer ay appel ay message naan dem leen inscrire ci fichier bi de telle date à telle date dañ koy arrêté donc xam nga mën nga am tey sa carte d'identité mën nga parrainage mën na jot candidat bi neex na ma parrainé naa ko est-ce que tey sama parrain sama parrainage boobu est-ce que valide na est-ce que nekk na tey nekk naa euh, sama carte d'identité baax na rek Euh, am naa sañ-sañ parrainé ba mu mën a valider. xam nga dañu ne parrainage bi dañ leen jox ay fiches nom prénom adresse numéro carte d'identité CEDEAO et ainsi de suite gars yi bu ñu demee doon ñu dugal ko ci clé clé bi la ñuy dugal ci machine bi rek mu liir mu liir euh, continue ah ci logiciel la ñuy vérifier ci logiciel la bu ñu ko dugalee rek clé bi machine bi logiciel bi day liir yi ci ne logiciel bi déjà numéro yi carte d'identité yi ñi ngi ci. d'accord. soo sa carte d'identité bi nga xam te ne yow yaa ngi moom sa numéro. Bon, mais vous faites que nañ les mise à jour. dans hmm. le logiciel bobio vous il y ci yow boo paree ne euh, Macky Sall vous ñu vous yow boo Vous rek day verte bu Vous nañ espace Voilà, y am un problème un problème day dañ bloqué. les procédures boo jox ku les raisons yi tax ñu. ñu rejeté ñi ay. Eh, ay doublure <laughs> mais li vous a li vous a loi bi dafa ni Mhm. Aujourd'hui, l'oligarche double, doublon il y les a 150 000, prisonniers et prisonniers. Ils doivent appliquer la loi. Non, non, non, ça c'est la loi. Ah, ils doivent dire dès demain. On a dit, 150 000 minutes pour que les ressortis multiplient. Non, non, <laughs> c'est la loi. Non, non, non, non, non, non, c'est pas. On a les prix euh, euh, euh, Il y a 2500 comme 2300 prisonniers. On est niqué, 150 000 c'est une pagaille que Macky a créée. Il l'a fait sciemment. loolu ngeen a les gens te posent la question tamit mais euh, naka la mise à jour mën a te mise à jour évidente technique là. ils font une loi des gens font une loi Dublin aujourd'hui on se retrouve avec 1500 prisonniers pour avoir parrainé deux personnes c'est pas sérieux léegi euh, monsieur Ban, sank yaangi wax ni que euh, ñi ngi wax boog ni bu féké da nga da nga parrainer nit c'est pas parce que pare parrainé nga kooku euh, moom nga wax moom nga. Euh, décider moom ngay décider pour voter mais est-ce que euh, sénégalais yi mën nañ xam ndax bu fekkee na woon nit. est-ce que am nga droit dem voter boo parewul kenn mais tamit euh, tay yaa ngi wax nga ne que ñi nekk ci euh, nguur gi ñoom am nañ possibilité tay nga xam sa sa sa militant yi xam ne kat ñii euh, seen fiche seen kii actualité actualisé wuñu ko nga dem yóbbu ko defaraat den ko est-ce que tay ñi nga xam ne ñooy opposants yi dinañ mën a am possibilité ñoom dem ñoom xam ñi seen militant yi kat ñi seen kii valable ñu dem defral leen ko que ñële nuñ ñu amee droit def ko est-ce que opposants yi accéder nañ foofu Évidemment, opposant, ñu ko parce que opposant bi opposants ay opposants lañu le ministre de l'intérieur il est de la du parti au pouvoir yow Pikine nga dëkk avant élection législative dégg nga fi le maire de Pikine ak ah, kii Aïda kii euh, Diawar que non non le gars de Pikine Nord Nord. Ah, ah, jóg ñu dem fekk benn femme bu APR ci këram mu yor ay carte éli seen i caractère électeur ay militants ñu koy séddale gis ngeen vidéo yaa ngi ci defal Google nga génne ko léegi ni preuve la te ñoom il identifie leur militants xam nañ ñi jox mais kooku interpellé woon nañ ko ah mais c'est pas important ce qui est important mooy li ma wax ni ñoom dañuy xàmmee seen ay militants def ko seeni sac des ko l'État. ils l'ont fait ah, kii kii fekk euh, ko Ils indi fa problème saisir préfet mm-hmm, mm-hmm. ils le font la ni euh, élection yi kay <laughs> élection yi jox conseil mm-hmm. à travers le parrainage opposition bi seetaane ba ba le parrainage mm. quatre sax du Ablaye Wade dafa nekkoon président le 11 janvier euh, le 11 23 juin mu jël loi normal c'est un président élu saisit une assemblée nationale démocratiquement élue pour défendre le car bloquant le peuple est au-dessus de la constitution et même du président si euh, l'opposition si l'opposition aujourd'hui réussit à mobiliser le peuple par un du de parrainage affaire âge ce que euh, les sénégalais ce que les sénégalais doivent refuser moi, tay ji man je ci mais on a déjà séréné à la population. Ah que parrainage Bini filtre pour candidat yi ko ci présidence. Ah, mais je vous dis non actuellement je vous dis opposition ils sont conscients do dépenser ces millions ñeu tok ben ay nit nit tok feulé ay informaticien di def liggéey bu police wara def li ñu def daaf na li def conseil constitutionnel c'est la police moko wara def. mais d' ils ont écarté la police jox ko ay civil ñu leen di joxe ordre ñu koy def. te xamni ne policiers yi ñoom duñ doon nang lool aujourd'hui dëkk bi ñom ñoo bëgg indi gote ci dëkk bi ñu nekk pouvoir. et moi je lance un appel au conseil constitutionnel les cinq sages bu leen doomu aadama gënal Sénégal. pas ah, d'accord mais mais mais ñaari contexte yu du ben yaa ngi wax 2011 ay individualité mo créé. Euh, M23 moy li nga wax ni peuple bi ñoo jógee seen mais de manière spontanée bokku ak opposition bi jëm nañu fexé pour opposition euh, pour en tout cas ñenn ci population bi à cette cause li ma la bëgg laaj mooy ah. opposition bobu nga wax non, dafa melni ne dañu yegg sen limite ci sen discours sen façon de faire ñooñu mënatuñu mobiliser kenn pour ñu adhéré seen cause est ce que aussi opposition bobu non ngay wax ni war nañ mëna taxaw pour euh, faire face est ce que am nañ doole jeeg bah, bi pour mobiliser opposition bi dafa gëna responsable opposition bi jël nguur ki Ablaye wat bu ko neexoon

autoriser les ko autoriser dans dans un centre névralgique parce que la population tay des li euh, euh, parrainage mais Macky dafa quadri assemblée à et c'est de l'intelligence lan la def dañuy population bi Nous ñuy jouer ak ñom policier ñu def ñu pousse les ñew ñew Sandaga def je je je je daw toujours ce qu'il faut les pourquoi nous avons une police professionnelle ce qui s'est passé le 23 juin c'est de la responsabilité de Ablaye il pouvait tout bloquer autorisation de marche c'est par exemple soulèvement populaire ma ne police ak kattan bu ñu mënti am. Mhm. ak jeunes yi bu ñu mënti doon. peuple bi defaree dafa mel ni géej guwuñ baam je suis d'accord munoo ci lenn mais li ma lay laaj ah. pour man loolu mhm. moo gën a am solo mooy tey opposition bi ngay wax ni dañu war a def faire face ak lii nii ñu jàpp ma ne naka sale ça la question naka lañu def marche nañu euh, yuuxu nañ lu ne def nañ ko ba léegi parrainage a dox dañu ne woon du am am na loi bi duñ ko voté voté nañ ko ñoom neewoon nañ duñ dem ci parrainage bi dem nañu out nañ ay signature ñëw nañ ah. dem nañ conséquences yi déposé nañ am na ñu ñu rejeté ñeneen ñu xaar leen ñii ngi premier tour ñii deuxième tour c'est-à-dire ba léegi ñu ngi ci jeu boobu alors que ñoom ñoo koy ŋàññi lan la ñu war a def pour li. ñu euh, génn opposition bi ñoom <laughs> li ñu war a def ñoom li ñu war a def je pense que ñoom xam nañ mais li ñu war a wax ñun mooy ki ñu jox réew mi démocratie sénégalaise fi mu toll ay nit dañ ci dee ndax Sénégal ex fi mu sekk ex day nit dañ ci tuur seen deret je me rappelle le 23 juin ben gars dañ ko d'orbal. bal mu ni sama direct mais Sénégal dina am ndam. ñu tecc ay kaso ndax démocratie sénégalaise tay buñu accès réew jox ko nit. mu jël nit tecc ko de kasso guddi mu internet bi dem Kata, kata, jël Khalifa tëj ko ci kase bi CEDEAO nit nañ ko bàyyi ñu bàyyiwuñu ko mu jël justice bi téye ko jël force de l'ordre téye ko jël ñëpp tënk seen kii non non mais non c'est un constat non non non wuy ma non non wuy ma wuy ma wuy ma c'est un Et loolu li waa kër oui ma gi nga li waa kër gi wax ni ngeen koy ñaawlu man je leur dis chapeau ils ont dit oui ma non non oui ma ils ont dit ils ont ils ont dit la vérité gi nga jëf bu ñaawee rek wax ko ñaaw jëf bu ñaawee wax ko ñaaw mais waaye nga ci langue politique bi ban responsabilité nga ci am la non tu sais tu sais moi je peux waaw oui bien sûr sauf que ce bi mooy dernier mooy last waaw non non non en fait man dama doit ci langue politique bi mais politiciens que ce soit ñu ci pouvoir bi ak opposition dama gisoon jikko ñoo xam ne man ko mooy ma dellu créer journal opposition non non non c'est grave c'est grave moi je dis ce qui se passe dans ce pays. je dis les problèmes ñu am milliards ñu def appel ñi amul carte opposition ça. opposition s'il te plaît Papa, ah, xam ban am na ci yoo xam ne bu ko dee wax dama ci ànd ak moom mais day jékki-jékki dugg foo xam ne. <laughs> après yow da nga naan kii journaliste eh, wala wala opposant la quoi doo comprendre du ma la mën a canaliser fenn xam nga. man fekk naa Sénégal ah journaliste bu da nga war a équilibré xol bëgg sama réew bi gis kuy jaxase may wax. déedéet boo ko waxee lan la. mais opposition lan mooy man mooy soldat réew mi.

buñ ci toog naan dañuy protéger euh, na ay ay ay ay soldats de corps loolu amul. non waxuma solidarité moi si je dois si je être mais quand même il des gens les gens dans la profession non non non qui sont dans la profession qui font ce qu'ils veulent qui sont avec Macky Sall il faut le leur dire. waaw bah, léegi baax na léegi baax na léegi xam nga li tax ma wax loolu. man léegi gis ngeen TMTC man sama distribution de parole amatoo ko yow yaay wax demal nii defal. émission bee neex émission bee neex léegi xam nga loolu laay wax dama di baax neex xam nga loolu. xam nga loolu. man bëgg naa boo xam ne dafay taxaw <laughs> bu ñuulee mu ne dafa ñuul. bu xonqee mu dafa xonq bu weexee mu dafa weex. d'accord naa ci ah. mais des fois yow dafa mel ni. da nga far. xam nga par loolu da nga far opposition bi da nga opposant nga. da nga koy nangu aussi ah da nga ñu koy nangul baax na da nga ñu koy nangul parce que nag duñu ay xale ay mag yi jëmb lañ boo waxee wax ñu. nu wax bu wérul nopp yi koy dégg war naa mën a wér quand même léegi nag yow da nga nuy nangul aussi ñun li la nangul da nga far carrément xam nga la laa la ban ban ban opposant laa bëggul opposition bi ma bëgg bëgg na adversaire mais bëgguma ennemi politique bi lang politique bi ay ennemis la ñu am mais amuñu adversaire bu dee Macky Sall seen adversaire la dañu ñëw taxaw opposition bu ñëw wax argument yi leer nañ génn seen programme wax dénoncé wax loo xam ne ku ñëw sénégalais boo am fulla ak fayda lépp luy defar réewam da ci ànd man Sall bi bi Sénégal tey bu ñu soxla woon ni sénégalais bu mën a jóg volontairement pour joxe bakkanam Sénégal mën am jàmm billaahi wallaahi watallaahi ak màkk ga ma jóge may joxe sama bakkan Sénégal ma gënal fu ma am mais bu fekkee aussi dafa am par parloo rek problème dafay am yéen ñi xam ne ay journaliste war a séddale parce que yéen quatrième pouvoir ci dëkk bi yéen bu fekkee am na ci ñoo xam dañu far loolu a nit ñi dañu am jeexi jaaxa donc nañu équilibré d'accord ci li ma kii def équilibré amul non non non non non non parce que boo nee lii kër gi lii kër gi wax ne ànd nga ci man xamatuma la en tant que responsable dama lay wax ba ci des aussi li nga wax sànq bu jëf ñaay wax ñaaw de waaw ma ñëw rek ma ñëw rek bu jëf ñaay wax ko ñaaw ma ñëw ñooñu dénoncé nañ ak porteur de la ñoom la leen tey fekk di leen ci fekk mais nit mënumaa d'accord nit saaga ndey ci mbedd mi nit daw dugg sama kër ma di ko fat du ma ko nangu kenn saagoo fi kenn saay saay kenn saagoo fi kenn mbubb bu ñu la ko soloon du la neex kenn saagoo fi borom njaareen saagoo fi kenn taxaw fii nañu góor gi dee na di tàccu taxaw nañ fii ni Ablaye Wade dafa góor gi ñoom la njëkk a dem seeti xam nga lan la Sénégal nag vraiment man Sénégalais vraiment mais lu tax ñu rafetlu ko boo demee en France y a journaux Libération c'est journal de gauche par ak gauche bi non di attends un journal de droite ils sont avec la droite oh. La Croix c'est un journal de l'église oh. mais non non c'est la il faut assumer hmm. moi j'assume ça n'a rien à voir non il faut et je vais continuer à combattre ce système waaw man damay damay génn foofu ma rebondir si li mu wax léegi ci comparaison 23 juin ak jour bi ñuy dugal projet de loi bu parrainage ñaar yooyu mënoo koo comparer. fàtte naa ko loolu laa bëggoon wax c'est pas comparable xam nga lu tax <laughs> baan c'est pas comparable euh, jour bi ñuy voté projet de loi parrainage ñun ñu ngi ci ñu ngi woon ci terrain bi da ngay gis opposants yi. ñoo génn interdit. déglu c'était interdit. Euh, force de l'ordre yëpp a ngi foofu woon mais. ñu ngi woon ci terrain bi da ngay gis opposants yi seen ay militants dong lañ àndaloon. ñenn ñi seen militant lañ àndaloon ñu jël ñenn ñi jàpp dugal ci oto bi yóbbu mais 23 juin quand même da ngay gis même bu dee ni sax après policiers yi génn gis nañ ndox yi tàng yi sax sotti nañ ko pour te dire que ni non dégg may wax pour te dire ni ñaari ñaari jour yooyu du benn boobu population bi moo doyaloon sëkk génn xeexal seen bopp mais jour parrainage bi ñoom opposants yi ñoo génnoon ba gis nañ fi sax ay porteurs de voix yu génn wax population bi duma ci nañ ma baa ci kàddu bi ay lâche lañu Mm. parce que dañoo toogoon seen kër. kon donc soo bëggee comparer ñaari jours yooyu c'est pas comparable te itam taxawal xaaral rek ba ma pare ba ma pare après di ñëw te itam ci parrainage bi ak loo bañ bañ bañ parrainage pour rappeler faruñu fenn loo bañ bañ parrainage mën nga nangu ni parrainage bi quand même <laughs> nañu ñenn ñi nga xam ne ku nekk ku tëb nekk candidat la am président nekk président ñàkk demoon na ba xaw a ñàkk valeur am ci Sénégal koo gis mu ne na président la am na ñu bari ba ñu xamee ne duñu matal <laughs> ba ñu xamee ne duñu matal dañoo daw génn ne man lii moo tax bokkuma lii moo tax bokk maa ngi dem di di di rabattre ci keneen wala di bor ci ginnaaw ndax am na ñoo xam ne ñame wu ñu dem déposé ji hmm. xam nañ li leen ciy fekk kon donc parrainage bi ñi nga xam xamante ne xëy na comédie moo leen taxoon jóg wala sax mu mbaay. merci non non peut-être comédie peut-être Kouthia la mais. non ak beneen du moom yaa ko cité non non non non non candidature candidature conseil constitutionnel la constitution bi moo définir kan moo mën a nekk candidat. faut pas dire que nit xëcc dellu na ginnaaw rek parce que. non mais boo xamee ne say parrain du ma amee âge bi am njàng bi remplir les conditions de la constitution mën nga dem même les douze millions de sénégalais ku ci ne mënoon a dem déposer ça n'a rien à voir 23 juin dafa am préalable préalable autorisation ak ñàkk autorisation bi ñu ko autorisé la veille la nuit tous les jours préparé jóg bi deux jours avant par tere nañ pare nañ pare nañ manifestation mais autre chose à l'époque toutes les télévisions pratiquement accompagnaient l'opposition qu'on se dise la vérité attends opposition bi dañuy jóg de manifester nekk waagu ñaay nga dégg-dégg benn télé benn rajo ne nous avons été obligés d'arrêter nos programmes on signal des manifestations fekk ngeen c'était c'était planifié organisé

Euh, yeneen bi du du du bëgg ñu waaxu waaxu naan ma waaw ñu wàcc de émission bee neex alors ñu dem ci sama euh, président ndax euh, moom it mi ngi toog du ñu seetaan son excellence mbay Sène en ligne pour l'actualité sportive président Mbaye ngi suivre ak ñun li nga xamante ne nii moom la ñuy def bi ñu commencé ba léegi di fàttali rek ne mu nga fële euh, ca Paris di dox mission yi ak yi nga xam ne yëpp moo jitteel suñu gouvernement président Mbaye maa ngi lay nuyu di la sargal. maa fay aram di nuyu ñi nga togal ñep di wax une chose rek la bëgg nga may aram Moy euh, dama sétane sen début émission ngeen di sargal Alain ak ki nga bi ni bii moy euh, euh ki euh, Asi Asi Asi nga xamanteni ño nekkon doon RDV depuis 2013. ba légui ni mu fay def liggéey bu am solo Alain mom dañ koy ak yalla rek lu sa la nga wax rek lay wax. yaruna teyna teey ngi def def te bolé ci ben wax Alain yalla na la yalla defal amin ñu door ak football local Jaraaf contre football local bi dëgg tey Jaraaf da doon équipe bi nga xamante ne moom mooy Gorée ñu si doon xaar victoire Jaraaf waaye fu ñu toll nii Jaraaf dañ ko mënee loolu nag arrangé wul ki nga xamante ne moom mooy équipe bu Malick Daaf ndaxte match retard la woon mu nekk septième journée ñu xaar Jaraaf mais fi ñu toll nii Jaraaf dañ ko mënee. fi nga xamante ne match retard parce que di fatel rek ni dafa jouer won ñaari match Coupe d'Afrique Ligue des champions lolo ñu doon rattraper championnat local bi. ci combat Ama contre Gris Bordeaux en phase d'être concrétisé. Ama balde Gris en phase d'être concrétisé ñaari ama ñaari promoteur ñom ñoo ci gum waye ki nga ama ci war na mun a jot avance su ko jotu gannaaw suba dina ko jot lundi loolu mooy information yi nga xamante ne bii am nañ ko nga xamante ne mooy Gris Bordeaux nag dañ doon discuter parce que nee nañu staffu Fass moom moo bañoon ki nga xamante ne moom mooy euh, Ama Balde mais mbër mi ci boppam d'accord na bëreeg Ama Balde ba tey ay information yu jot la loolu moo tax waa Fass ñoom Abbas Ndoye jafe naa toog nañu autour d'une table waxtaan ak Gris Bordeaux mais jàpp nañ ñi combat boobu nga xamante ne moo def ci diggante Ama Balde ak Gris Bordeaux alors en foot européen Boxing Day le match du titre pour Liverpool. ça sera demain Faut li nga xamante ne mooy Anfield car Liverpool mu ngi raw ki nga xamante ne Manchester City et on se souvient que l'année dernière Manchester City moom moo jël championnat bi. Liverpool mënoon na koo il y a deux ans de cela ba mu amee ay trois ans autant pour moi ñoom Suarez ak ñëpp. Moudel, à la dernière à l'avant-dernière journée l'équipe surprise de cette année mais Liverpool est très bien parti avec son trio Firmino Sadio et Mohamed Salah et les derniers sont au sax ci il y a le Sénégalais qui est là-bas Sadio Mane qui est en train de faire une très très très bonne saison et ça sera demain à Anfield Liverpool qui reçoit Manchester City ce qu'on gagne dina a encore le match 8 à 9 points. Président Mbaye certainement yaa ngi euh, Mamadou ci li nga ñu ko doon euh, ban laaj rek nga koy balaa ngay dem. Mout sax ci débat bi ak euh, le président Sonko j'ai vu sa réaction gis mais encore une fois rek aram ñu mayaat ma rek ma sàccaat ci wax par rapport ak la sortie du clip de bi nga xamante ñëpp xam nañ sama position ñëpp xam nañ ni man je ne suis pas avec le pouvoir daanaka Sadio Mané nee neena mut da nga far man ma gëna far mut waye nak amna yenn kàddu yo xam te kenn du ko yëkkati ci njit parce que c'est important tey Macky Sall c'est la référence du pays tey Macky Sall moom mooy le premier sénégalais motax amna yenn kàddu yo xam te say saay kenn du ko yëkkati ci nga xam te ne mooy kilifa. concernant nak li nga xamante ni bi moom mooy mut baan je vois sa façon de faire gis na ni nga xamante ni noonu lay liggéeyee encore une fois mout ndànk nag eh, révélation ngay génne doyna euh, président euh, Maysen Sène ci euh, actualité sportive mais également contribution ci nga xamante ne nii monsieur Barre xamna yakalti na naa tontu mais da ko koy lebal ba après page publicitaire ñu del soir <laughs> cœur de la Casamance, dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamanceaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamanceaise, naturelle comme j'aime. La Casamanceaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamanceaise.com. merci de suivre toi-même tu sais y a une deuxième partie nous euh, ñu 14 millions de problèmes début émission mon problème mi émission <laughs> mais grave ah, rubrique amul solo euh, problème invité euh, l'exigence des mareyeurs exportateurs du Sénégal avons carte professionnelle. effectivement comme nous madame si depuis atum 2016 ñu supprimer li nga xam moy sen carte professionnelle yi te euh, ba légui yéen a gi ñaxtu yéen a ngi koy laaj mais qu'est-ce qui s'est passé La moo tax ñu xëy rek supprimer li nga xam moy sen carte professionnelle ak est-ce que bañ koy def euh, prévenir les nañ leen pour wax leen ni dañuy wajal pour supprimer sen carte mm, voilà Awa Mang lay sant di le xam ci invitation bi. Donc je profite aussi de l'occasion de présenter mes meilleurs voeux à tous les Sénégalais et à, tous les professionnels de la pêche C'est euh, une pensée pieuse pour les pêcheurs de Saint-Louis Ils nga de de nourrir au temps mm-hmm. donc euh, di avons 14 millions de problèmes Moi, je trouve que 14 millions de problèmes c'est dans la pêche mm-hmm. parce que c'est un secteur qui a beaucoup de problèmes. Nous avons problème ba 2016 décembre la ñu mhm. ben Le directeur génne une circulaire ne que il arrête notre carte professionnelle de marailleur exportateur troisième catégorie. te muy carte bu nga xam ne décret moo ko les ñun ñu doon ay sénégalais bëgg daan suñu doole jóg di ubbi société ne on commence par où on commence par chercher une carte professionnelle nga wut ko pare tourner un directeur non pas le président de la république bi nga xam décret wala le premier ministre mais un directeur circulaire le directeur de la direction des industries de transformation de la pêche muy Diène d'accord novembre la est circulaire nous on a été averti en décembre 2006 nous rencontré ko à partir de janvier 2017 carte ce n'est plus valable de renouveler. Mhm. il n'a pas donné de raison parce qu'il dit que le décret bi dafa am ay il y a qu'un seul mot qui nous boo xam ne je peux dire euh, mooy suñu différent. Mhm. mooy disposé mareyeur exportateur mooy marais bi nga xam ne droit dem sous-traiter ci ay usines wala mu jënd ci bateau jël produit am yónnee ko bitim réew d'accord ñun loolu moom ñun boobu mariage la ñuy def mhm. donc mu nekk une carte spécifique mhm. moom mu ne on n'a pas le droit ñuy exporter te amuñu unité de transformation alors que ñun unité de transformation yi fi gis détenues par des Sénégalais presque elles sont toutes mortes Nous ñëpp pas pas bu Dundé. Nous ñun prestataires nous, ñun ñoo de di survivre yow yaay am sa client nga ñëw liggéey fa courant bu fay tax nous fay sen courant fay sen employé sinon dañuy tëj donc ñun bi euh, éliminer suñu ay carte dañ ko rencontrer réunion nous, ñu demander audience ministre B, recevoir euh, secrétaire am sax peux recevoir madame Tiké c'est l'actuelle euh, directrice de l'ANAMS ne peux recevoir après le ministre nous a reçu defal ñu promesse jusqu'à présent 2016 ba pas de retour mmh. d'accord bi ngeen demee après ci euh, ministre bi jot ngeen a euh, gisanteeg moom waaye yaa ngi wax ni amul retour est-ce que après loolu jéem ngeen defaat yeneen euh, démarche dem seeti peut-être ñeneen pour waxtaan ak ñoom pour ñu jéem dimbali leen ci carte yi nga xam ne retiré nañ ko. Bien sûr, Awa, on a fait des demandes d'audience à la présidence de la République, adressées ko le président de la République, Macky Sall Tibopam, ko aussi au directeur de cabinet euh, monsieur Oumarium, Mon euh, maître Oumarium, il nous a reçus Mon mythe promesse de qu'il va faire euh, la remontée au niveau du président de la République ba toujours rien Nous ñuy wax que ñun ay en tant que sénégalais. Nous environnement de la pêche léegi la pêche est en train d'être récupéré par d'autres nationalités Manam, nous, sénégalais yi pêche bi ñu moom nga xamné euh mun de l'économie sénégalaise nous bi koy mo koy dolel ñun on est en train de perdre ça d'autres nationalités ñoo ñëw suñu ay autorités jox leen ay

ñaata nit peut-être ci entreprise yooyu nga exportation mariage plusieurs personnes parce que euh, pêche dafa c'est une activité génératrice de revenus mais dafay employé nit ñu bëri boo seetee pêcheur bi ba bi ba ñëw ba ci biir usine bi ñuy liggéeyee jën bi ba kay exporté ba kay yóbbu transitaire beeg ñëpp ak transporteur yeeg yëpp. donc c'est une chaîne c'est toute une chaîne. mais collectif bi ñaata ñaata structure ñoo si nekk collectif. collectif bi nous on s'est constitué en collectif c'est le collectif des mareyeurs exportateurs du Sénégal. 200 cartes comme ça ont été délivrées. D'accord. donc ñun lu ñu concerné mooy il n'a pas le droit de suspendre sous quartier parce qu'on euh, a un droit acquis sur la carte et on doit jouir de ça quel que soit alpha. Pape Oui, je li ma la bëggoon laaj mooy bi ñu ko nee nga bi ñu leen bi est-ce que vous avez cherché à comprendre lan moo waral loolu su fekkee vous avez une idée euh, ci qui ngeen jort derrière ak promesse yi ngeen wax ni ba ngeen ministres ministre Oumar Gueye. Bon, yooyu lan la leen wax ci délai bon euh, euh, yaakaar naa ne suivre un peu. Hmm. sama sama wax. parce que je expliqué naa la raison bi ñu jën jox pour que moo tax mu sur suñu carte. Il disait qu'on devait disposer d'unités de transformation. Ah, alors que la carte a été délivrée tout en nous permettant de faire de la sous-traitance dans les usines donc ñu am usine ñu bañ ko am yëpp dañuy liggéey moom nee na il faut que ñu am usine pour exporter. Mm. donc noonu la demee. Mm. donc rencontre aussi ñu am ak ministre bi. on de lui parce que c'est notre ministère de tutelle. Mm-hmm. ñun moom la ñu mooy autorité bi nga xam ne moom la ñu war a mun a adressé wul. Mm. il nous a promis de nous revenir ba léegi oh, dégguñu ko. Je mm. ne Père pas ah, avant yow aw sinon nga def ma Ousmane monsieur <laughs> xam nga xam vraiment dañ koy dañ parce que nit ki ci walu ak ko ko jox mais li ma gëna pas ci wax à l'étranger xam ne seen nit bu ñuy ñëw dañ leen accompagner leen fu seen doomu ñu mais toujours Sénégal dafa mel xam nga da ngeen seen biir rek mooy 14 millions de am na beneen 14 la sedd cin gis nga tey jii ni nga koy xamee arab gis nga tey jii boo wàccoon dëkk bu mel ni hmm. nga gis américains yi seen doom bu wàccee ci aéroport bi fu mentee nga wàcc New York wala nga wàcc eh, ci ci seen kii ni ñuy traité seen doom yi dañ leen di nabbi nabbee gis nga ñun ñi nga xam ñaata ñun ca ca géttu béy ga la ñuy dugal rek gurgurlu maanaam américain dafa fonk doomam dafa mel ni tubaab bi ñoom ñoo ñu gën a bëgg seen doom mais ñun dafa mel ni Sénégal suñu problème mooy loolu xool suñuy doom yi dee bitim réew. pour kees gi ñëw sax pour néew bi ñëw sax problème la. famille yi ñooy mujjee cotiser dafay affaire lijjanti bu ñëw ñaata étrange doomu Sénégal ñoo des bitim réew ci wàllu pes bi ñaata doomu Sénégal ñoo baax des ci waaxu Mauritanie bi xam nga yooyu alerte la pour état di jël ay responsabilités am. tey opposition bi ci yooyu lañ doon di taxawaan. di mel noonu ñukoy nit état di di taxaw ci opposant man je ne suis pas opposant Sénégal je suis communicateur traditionnel. mais non non par rapport euh, ba bah, bah, <laughs> ak seen dañ leen ko jox parce que ku lek ci mi. Hmm. ñoo tax. national les nañ leen fonk jox merci beaucoup. mais nous compte de la est-ce que c'est un cas wax nañ moi tout récemment j'ai assisté à un euh, atelier qui def ci ci fisheries transparency mhm. donc là aussi il faut que ñu profiter non mais est-ce que temps vous remplissez les conditions parce que quand même si vous les conditions d'hygiène les conditions financières et les conditions techniques pour euh, ngay mën a importer. bu euh. fekkee ces trois conditions remplir ngeen ko joxuñu leen carte bi ça pose problème bu fekkee remplir leen ko benn ci yooyu bu ñàkk surtout les conditions d'hygiène parce que dafa am ay ay accords. Mm, ay accords yoo xamante ni mooy c'est ces ces ces. du ma nga baal ma du ma la couper mais wax bi yëpp dafa flankulaay man carte professionnelle laa la wax carte professionnelle c'est pourquoi c'est pour remplir les conditions nous on remplit les conditions di dem di liggéey ci usines yoo ils répondent aux normes waxuma la sax sénégalais aux normes européennes donc ñun man par exemple buma la waxee lima ma ci pêche étant étudiante man ci la dugg ci pêche di dem ci usine di fa def journalier di fay samay étude ak yépp donc usine j'ai brûlé toutes les étapes de l'usine bailleur usine le gouvernement bi tas parce qu'ils ont dit que c'était sur l'emprise de l'autoroute à péage pour vous dire comment sont nos autorités su on extérieur on ngaa toj usine nit une wutal nañ la fa ngay nekk mm-hmm. bu la ñu la fa am arrêt de travail mais depuis loolu ay toltolaan lañu ñu légui yeen yéen ngeen yaakaar euh, lan mo nekk ci ginnaw daal lan mo tax yeen ñu leen ni léser au détriment de étrangers yi nga xamné dañ fi ñëw ñu préférer di liggéey ak ñom yeen ñu bàyyi leen pour yeen lan la lan moy problème bi. awa euh, man loolu bu ma ko xamone duma top fi mhm. parce que fi Sénégal non c'est vrai. netti na nag mais euh, nitti li nekk ce qu'ils ont derrière la tête yow mënoo mhm. ko xam. Mhm. te mënoo nettali tam gént jàmbur.

mais sénégalais yi ñi ci biir réew mi nañ leen bàyyi xel bu baax parce que ñoom ñoo leen fi teg mhm. un étranger ne viendra jamais jël carte votam di ko dugal ci urne. lan mooy sa relation ak Gaye Pes Gaye ah yaa ngi jël sa temps de. Hmm? Hmm? Gaye monsieur monsieur Ban. non c'est non Gaye Pes ak UPAMES c' est des organisations comme nous. Ah ñoom dañoo organiser wu. ñun ñu am suñu organisation muy collectif.

Bachir Niass la ñuy dalal euh, thème euh, du gàmmu islam ak tanef. lan lañ mën a dégg ci thème boobu. waaw may ma rek ma nuyu ki nga xam ne moo ñu fi yebal ci borom gàmmu gi di Serigne Hadi Niass moo yebal fii tabaarakallaahu mu rafetlu jotaay bi xaritu Sala Bigué incha allah ñu ñëw ci jotaay bi pour wax leen li nga xam ne moom moo am samedi muy. Gamu gi nga xamne mom lay am ad mu jot di ko amal ci Dalifor daru salam cité Mor matissar mm. nga ren la mat ren la ñaar fukel yoon ñu def kon te ñaar ku ne ku ne ku ne 20 ans xamne du 20 jours du 20 mois degg la ren nak mu tan ben tem bo xamne xamna tem bi sax dafa méngoog plateau bi actualité la ndax moy euh, islam ak tan léegi nak liñu wara tan lepp dañ ko wara tan mo waral ku ñew lu mo lu mo lay dugg rek l'islam wax na la noo cay tànni mhm. kuy dugg ci soxna war nga ko tan hatta sax fa tabaarakallaahu wax it wax war nga ko tan maanaam it bu de sisi sisi wala mbayen mbayen sax ciep sax dañ koy tan wala li ñu war a tànn dafa bëri moo comme l'islam ak tànneef la nag ku bëgg xam li ñu wara tan lan la dañ lay jox rendez-vous fi nga xam ne rek mooy salam dali for gàmmu Serigne hadi Niass Oustaz adi Niass moy def waxtan moy def waxtan wi inshallah programme bi mi ngi déparé nga xam ne nga ne aljuma ci lay gan yi commencé ñëw bu ko defee bu ñu jullee juma mu def euh, xutba goo xam ne mooy discours boo xam ne day méngoog euh, li jamono di doxee. Mhm. buñ ca demee ba ngoon ñu def xadara juma buñ defee xadara juma daral gan yi buñ xëyee suba jàng kaamil ñaanal réew mi ñaanal kilifa yi buñ demee ba ngoon ñu def benn conférence boo xam ne di leen ci rendre hommage Sidi Lamine Niass fa tabaarakallah nga xam ne da ciy invité mboolem kilifa diine yi moo xam. kilifa aada yi parti au pouvoir wala opposition ñëpp ñu woo leen ñu war a waxtaanee li ñu bokk muy réew mi. Mhm. ndax réew mi moom ñëpp ko ñëpp ko bokk. Mhm. ni koy suñu mbokk yi di waxee dara bu bàyyi ku nekk am nga ci morf. kon kon lu moo lu mu neen ko waxtaanee rek bu ñu ba guddi nag bu ñu duggee ci guddi gi bu defee fa tabarakallahu ñu jox yi ñu zikkar ba tudd yàlla ba tooyal xol yi ndax alaa bi zikrillahi tatmainal xulub bu ñu demee ba foofu nag ñu jox sëriñ Hadi Niass mu war a dugg ak ñun ci lislaam ak tànneef bu ko defee nag mu traité thème boo xam ne incha allah ku fa ñëw daal da nga dégg loo xam ne du ma ne mosoo koo dégg de waaye da nga ko dégg déggin boo xam ne daal mi ngi doral leer ci sa bopp. dina la jural njëriñ. Mm-hmm. jërëjëf Bachir Niass doon euh, waxtaanee Bertale euh, yow yàkki seen jeex na. tey damay kii sax du la bàyyi sax nga sànni si ren ah avis de jur plus mu sax man ngi koy xool léegi. non non ban ban bu doon nga maa may ak moom rek ci <laughs> a noggatu. ba bu ngeen <laughs> alors Abi ñu jall légui légui en quelques secondes ci deuxième actualité bi nga xamné ne nga ko ndax tamit euh, c'est un fait du jour. voilà deuxième actualité bi mooy rek euh, le fait que ñi nga xam ne ñoo di candidat déclaré yi daal di woon dem foofee euh, nga xam ne moo di conseil constitutionnel ñoom nag 10 heures lañ leen convoqué woon mandataires yi ak ñi nga xam ne ñoo di ay candidats ñëwoon nañ à l'heure pile ngir rek récupérer seen ay procès verbaux ñi nga xam ne dañ doon contrôler seen ay parrainage mais ba loolu amee bu ñu sukkandikoo suñu ay yenn confrères dañoo ne rek dañoo mujj daal di dem euh, huis clos ci benn kër bu nekk à côté waxtaan ban stratégie la ñuy jël ngir rek faire face ci ñi nga xamante ne mooy décision yi nga xam ne conseil constitutionnel jël na ko ci yenn candidat yi nga xam ne dañ leen a recalé. est-ce que du li euh, monsieur Bane doon wax sànq loolu lañ nekk xool nu ñuy def pour. parrainage bi non non ñoom dañuy bàyyi parrainage bi loolu lañ doon ba heure bi. ah mais bi fi caaxaan amul pare xam nga xam nga. njëriñ dañ ko bàyyi quoi nit ñi ne ci ñu ko am candidat mais tax ñu ko mais pour c'est tout xam nga bu parrainage parrainage depuis élection di élection Sénégal 15 candidats boobu parrainage amul ñu am parrainage ñi déposé officiellement mat 23 quel est le problème kon parrainage moo tax nit ñi yokk. mais amoon na lu toll ay 97 déclaré non bu ñu ko bàyyi woon du egg sax parce que musu faa àgg. non non je te dis. ñu déclaré musu faa àgg 1960 ba 2012 musta am mënuñu kon 2019 2017 day àgg. sans c'est pas déclaré am nga idée ci ñi déclaré wu. ah candidat li mu wax dégguloo li mu wax de. 1960 ba 2012 parrainage kenn musu ko wax Sénégal ñi ngi woon suñu jàmm ñun. te mosu ñoo egg 15. mais d'accord. accord léegi lan moo tax lan moo ñu indi parrainage ñu egg si fii. waaw d' accord le fait que le fait que le mu génne volonté bloqué rek moo suscité nit intérêt mais vraiment mosu fee am. mais mais mais Ban euh, lan ngay rêvé ci élection yi tey par rapport ak candidat yi euh, président Macky Sall mu ngi ci bilan mu ngi xool la mu liggéey ma ngi cay wax ñu ngi ciy commenté di dem. mais beneen wàll gi dafa am ñeneen ñoo xam ne mën nañu jàppee peut-être ay challenger géré guñ dara. te ci seen i discours xaw naa rafet trop yow mii jonjonteeg ñoom di déglu ñii di dugg ci ruq yi xam li yéeg luy waaj tey boo ñu doon jàngatal ci ñii laaj jotee ci réew mi ak ki fi nekk ak yooyu lan ngay xaar di ko rêvé ci réew mi en matière de démocratie ci débat bi au moins. mu mën a enrichir suñuy taxawaay xam nga Macky moom xam nañ li mu mën ak li mu mënul. mais man je me dis sénégalais li war a gën a concentré wu mooy ci ñii ko bëgg a remplacer. mën naa am ñi ngi yor jikko ju gën a ñaaw ju makk yor ni makk ak nit ni muug ak moom te duñ ko xam lu jour bu ñu leen joxee. Hmm. man faruma opposition. kon nu ñuy def. mais looloo doy waar. <laughs> parce que non non non parce que xam nga la. c'est important li nga wax mais important. tànneef bi. tànn ñii fi ne ñi ngi yor jikko ju gën a garaaw jikko ji makk yor ni mbatt balaa muy feeñ ak ñu jox leen. Hmm. problème bi xam nga Sénégal lan mooy problème bi. Hmm. fekk dugguñu di yor laaj réew mi ci dëgg. yor réew mi ci dëgg on a toujours des problèmes lan mooy laaj réew mi ci dëgg mooy nit ku ne li nga wax nga def ko hmm. te nga jomba wax loo dul def te lépp loo nga xamante ni génne ko sa gémmiñ ba sénégalais tax tax ñu jox la bu ñu la joxee nga doxal li ñu wax noonu nga def li kon su ma la déggee ñi nga déggagum ñëpp amul ku dal sa xel non si Ah. man tànnuma kenn waaw damay man réew mi kenn ma ci kudul sax bopp mais est-ce kon mën nga wax askan wi ne rek ah, ah, ah bàyyi leen xel non non non li gën a baax a baax ci réew mais arab na lu neex wul arab wul li de arab du ma ko gëm ko arab mooy marem mooy mais wuy ma mais li nga wax sànq dafa am solo maanaam euh, bu ma la déggee dafa mel ni comme si da nga bëgg wax nii buñ déglu ñëpp ci ñi yëngatu wala di nga bàyyiloo xel ci ñenn ñi. gis nga li ma bëgg mooy. Hmm. candidat yëpp nañ indi programme. Macky waxuma la loolu. waaw non moom laa ñu damay ñëw damay évoluer. Macky Macky Macky indi na PSE. déedéet waxuma loolu hmm? déglu ma moo xam yow da ngay dugg da ngay génn. da ngay wax ak ñoom da ngay jonjonte ak moom te ñooñu ñoon di wax ni ñoo baax ci réew mi yër nga lu mu gàtt gàtt ku ci nekk sa programme. xanaa war nga ñu programme. waa waa léegi. Macky ak Bougane ñoo indi programme. ci tendance yi ak yéeg waaw kon programme ñëw na. Ah? mais ci yooyu amuñu vitesse dañoo wax rek peut-être peut-être bu ci euh, kanamee. léegi programme. keroog on a parlé moo ko waxee mu ne ma sama programme génn gu dina génn. waaw léegi léegi pour ma laajal laaj bi mu ree léegi danga naan sénégalais yi bàyyi leen nopp ak gët ñu mel nii ñooñu ñana. ah déet Pape propagande. non non non ñu mel ni yow. la Sénégalais jox ma ñu mel ni yow waxuma nga jox ma tur waxuma nga jox ma tur wala nga wax ma nangam maanaam ci. mais non non cest nañ bàyyi xel ci nit. programme doy na waxkatu dëgg ak nit koo xamante ni. Ah, ah. waxee daaw méngoo ak jëfi renam. ne hmm. loolu baax nit koo nga xamante ni ci politiciens yi. waxee daaw méngoo ak jëfi renam bàyyi ko. faram hmm. si balaa may dem si Père Sall si. bëriwul ci amul ah sax man euh, je suis d'accord nak euh, ak Ban cette fois-ci. Eh. moi maanaam il faut que tam sénégalais yi mën a sélectionner. Mhm. parce que ku nobbin rey samam boo gisee lu ñuul da ngay daw. donc kuñ fi war a teg war nañ ko seetaat bu baax parce que bon dico yi bëri na. Hmm. promesse yi bëri na. Mhm. mais après koo fi teg aussi lan la ñuy indil. Hmm. on sait pas donc na sénégalais yi bàyyi xel bu baax lu ñuy def ak ki ñuy war a teg ci suñu réew.

jullit yee ko moom église chrétien yi ñoo ko moom palais bi Macky nekk rek la chrétien ak jullit mun naa tëjaane ak ñëpp bokk foofu fu ñu ko yóbbu nañ ko segg ñu xool ko bu ñu dégg discours yi ak wax jeeg topp bës bi nañ xool nit ku ñor ku am expérience bëgg réew mi te wax lu leer ñu jox ko réew mi bu dawalee ñu natt ko ci li mu waxoon loolu lay tëjee. jërëjëf euh, Mamadou Mouta Bane journaliste et directeur de publication euh, Dakar Times bul gaaw a ñëwaat yow moom si invité yi ma naan bul gaaw a ñëwaat <laughs> ci nga bopp. peesa la ñu jàll ci avis du jour. avis du jour mooy lii rek. Hmm. nit moo lëndëm. fi ne nii pour ci group bi noonu pour ñu xam ci kan moo kan la ay waxi daaw méngóog yeneenam du yomb. kan mooy dem ci jongante wane ni nga mel carrément hmm. amul amul nit dafa lëndëm dan lay nëbb xam naa ne xool naa la. mais lan laa def xamoo ko. xamoo ko nga baam lu ma def. ma la gis naa ko damaa ngelaw ju parce que nit mu lëndëm dama lay won lii. non. papa. maa léegi maa ngi wax ak baan nee naa nii ne. baan xamul lu ma def. c'est nit moo mel noonu nit mu lëndëm nit deful lëndëm léegi nag ñun li ñu war rek ñun ñun citoyen mooy lan. lii bi ñuy def. nan ko bàyyi tey fal. Mhm. danoo war a jàng fal. mais fool folli la gën a mën. gis nga fi ngay ne Abdoulaye Wade demoon na 2012 euh, bu demoon Sali Bigué gars yi votel Sali Bigué. Sali Bigué lan la man mais Sali Bigué liñ ñaan boo remplacé mburu xam la mburu daj. xanaa xam président Macky Sall mi nga toog mu yàgg mu ne bilaay su ma yëgoon ma dafa metti neex na nag di nga am ay pouvoir di nga am ay kii mais di nga toll moment boo xam ne di nga naan waa ndekete réew nii la metti kon nañu xool ñun fi ñu jëm mooy fan te ñu xam ne nag li baan wax léegi am na loo xam ñun ñëpp ñoo ko bokk muy njariñu réew mi di intérêt réew mi nanu xool li gën ñu di ko def te ñu yéenante jàmm te bàyyi pat parlo bi bàyyi dëgg da teg dëgg fële di pat parlo nanu ko bàyyi Sénégal jëm kanam comme ko bu bees mm. li ma leen di wax rek mooy yàlla na yàlla defal jàmm dafa ñu atum naataange beaucoup de santé prospérité beaucoup d' argent moyen de problème beaucoup de femmes beaucoup d' enfants ah, ah, ah, yàlla defal jàmm ci réew <laughs> sëñ Modou Mbacke fan laa xool. Ah, na. góor bu amee benn soxna daa feebar. bu amee ñaar mi ngi faju hmm. bu amee ñett tane na. Hmm. bu amee ñeent wér na ah. bay faje <laughs>

nationale ma leen di jox euh, daje suba incha euh, ci beneen numéro ak beneen invité jaa ngeen jëf. <laughs> production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd bés bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit les doom